Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. gaa yi ñëwati nañ ak seeni pexe de ko ci ngëm sama gaa yi utiliser leen seen xel yi naan leen ndox ngeen ànd akub dal def leen ak njàngat ci Sénégal ni mu demee Sénégal sunu gouvernement bi lajj nan lajj goo xamante ni sii ci wàlluk yàq ci wàlluk doxalin ci wàlluk xoqatal ci wàlluk dóor ci wàlluk tëj yàlla ñëw ak mbiram nit faatu ñu nekk ci tow loolu ñu gëlëm France amatu fi benn pexe ci Sénégal waaye nag ñëwati nan ak seen pexe bu garaaw a garaaw a mbokk sénégalais yi wallahi bëgguma woon dugg def live tey sama gars yi mbokk sénégalais yi dama bëgg ngeen dégloo ma ak xel waxee wuñu ak ngëm-ngëm de sama gars yi danoo xam fi nga xamante ne si point bu gën garaaw bi nga xam ne France dëkk bu mu taal foofu la ko taalee sama gars yi Mali gënuñu leen xool leen la xew Mali Mali jullit yaa ngay tey bopp de mbirum waasa yee ña ngay tojantey bopp sama gars yi déglu ngeen fi ñu wax leen wàllu terrorisme yi génn fan yi sama gars yi ñu ñu keryee ko déglu ngeen ñu wax leen wàlluk robel sama gars yi déglu ngeen ñu wax leen ay wàlluk pulaar ak ay joolaa yooyu pour jaxase leen fu coow jibee ci senegal bàyyi leen xel bu baax a baax dafa am xibaar bu dikk léegi damay bañ sama gars yi jiital santiment mooy ngëm-ngëm gi sama gars yi Sénégal xam ngeen luy sunu problème bi gën a rëy fi mu toll nii Sénégal chrétiens yi xiif nañu mar nañu amuñu liggéey amuñu gont takk nañ leen jaam solal nañ leen Sénégal jullit yi sonn nañ amuñu lekk amuñu ñaan amuñu xëy Sénégal murit yi am nañ problème lekkuñu naanuñu am problème bu rëy rëy tijaan yi am nañ problème Baay Faal yi am nañ problème Sénégal foo laal mu métti ñëpp danoo am problème Sénégal ci boppam moo am problème peuple bi am problème ay njiit yu bon jiite ñu ànd ak tubaab ñu saraxanu ñoom ak tubaab fi mu nii ñu ngi jéem a xool yan ndëgg sërëx yan point la ñuy mën a jaar pour taal Sénégal moo tax wàlluk ethnie wàlluk waaso danoo xam ni mu mel tubaab dafa xam ak saay-saay dëkk yi mu taal yëpp lii la ko taalee te loolu seen dëkk la njëkk moo tax nag bu nu ñëwee dañ koy jéem a jaarale ca diine ga jaxase murit baak ibaado ba jaxase tijaan laa laayen ba jaxase xaadar baa ngeen nekk fa di tojontey bopp ci wàllu gëm-gëm wallahi ñu nax leen trompé leen ndax gëm-gëm moo foor ngeen fàtte àllu pétrole ba ngeen fàtte defar seen réew dañ leen bëgg a gëlëmal dañ leen bëgg a lëndëmal mbokk sénégalais yi moo tax kon maa ngi woo man jeunesse bi ak lu waay mënta gëm gis ngeen xam ngeen lu nu jikk nan joxante loxo ànd xàccandoo dóorandoo barki alquran dañ ñoo bëgg a jaxase dañ ñuy fowee dañ ñuy manipuler li ñuy manipuler yeneen dëkk ya damaa bëgg loolu ngeen xam ko ma ñëw ci yéen ak benn xibaar xibaar bi waxew ma ay gëm-gëm waxew ma leen mais ay caaxaani kase la ak i ak ku ko mënta doon ak sëriñ bu ci mënta ànd nag ngeen dugal ko seen bopp bi système bi moo yaatu foo yi moo yaatu ñu xam fi leen di jaaree gis ngeen dëkk yi nu taal yëpp dëkk yi nu indil problème yëpp ñu ngi ko jaare ci wàllug diine jaare la ko ci wàllug leneen ñun danoo sonn activiste yi nekk nañ fii di wax di coow di xeex di def lu nekk askan wi di leen saaga ndey barki démb leen sëñ Muntaxa Mbàkke woo ne leen yéen ngi ci dëgg sama gars yi dëgg la yàlla bëgg bu ñu nit ñi jaxase bu mooy fu ñu ko mënta jaarale ba ci ab sëriñ sax bu ñu jaxase boo na kenn jaxase ñu ko ñu doon xiif de doonoo sonn de bu ñu taal suñu dëkk laa leen wax sama gars yi buñ ñu fawee gars yi fi ñu gën a mën a jaar dañoo xam pexeb saay-saay xam yàq xam lu bon di ko def te di ko dox dafa am benn xibaar bu ma dëkkal muy waa Qudaam waa Qudaam bii may wax jublu ma ci waa Murit pour ngeen comprendre ma jubluwuma ci ab tarixa jubluwuma ci dara acte bi ñuy def du acte waa Touba ñoo ko def du acte boo xam ne muriti ci boppam ñoo ko def wala kenn acte bi acte lii police police lii affaire politique la affaire bëgguñu dëkk bi am jàmm bëgg nañ jaxase dëkk bi bëgg nañ taal dëkk bi pour ngeen def ko ci seen bopp yooyu ci ngëm-ngëm kottu lañ leen mën a jaare man leen fawee fin fexee ba doo leen mën a déggoo mooy ci ngëm-ngëm wallahi laa leen wax ku bëgg pare na nga bëgg a taal dëkk bi nag yaa xam taalal dëkk bi ku bëgg sa torox toroxal mais bu leen ñu toroxloo bu leen ñu sonal bu leen ñu tuwaay ku nekk nag xoolal sëriñ bi bu ñu kenn boole bu ñu kenn fawee yi ay ndëgg sër la affaire xudaam bii ma gis nii ñu ne léegi dafa am benn jàkkay ibaadu jàkkay ibaadu ja léegi ñoom lañ bëgg a toj ma génne xaw ma daan jàkka ja lañ est-ce que xam ngeen loolu luñ si jublu du ay tëji jàkkay ibaadu de du ay problème ay ibaadoo ak ay murid ay problème yoo xam ne yu nu créé même bu dee am na benn sëriñ tudd nañ ci benn sëriñ fii am na sëriñ yuy politique am na sëriñ bu toog fii am lu mu wax yeneen moromu sëriñam weddi ko dëgg la yàlla bëgg ñun peuple bi danoo sonn danoo xiif danoo mar sëriñ bu ñuy jàppale kaay jàppale ñu ci jàmm comme ni sëñ Mountakha def sëriñ bu ñuy jàppale kaay jàppale ñu ci jàmm Sénégal Sénégal bu tollee fii ay coow dikk fi wax na leen ko ñun danoo dofut danoo xam lu xew di leen aviser ay affaire après ngeen gis ko gis ngeen yi ay ndëgg sërëx kase la sama gars yi ngeen partagé live bi ngir yàlla ngeen partagé live billaahi mbokk Baay Faal yi déglu leen ma ngir yàlla ak kel mbokk murit yi déglu leen ma ak xel mbokk tijaan yi déglu leen ma ak xel déglu leen ma ngir yàlla waxuñu pour ay ngëm-ngëm ay leneen ak la ci affaire foofu suñu dëkk bi ñu danoo sonn bàyyi danoo bëgg danoo bëgg liggéey bàyyi ñun danoo bëgg a hopital ñun danoo bëgg France dem yoonam ñun dañoo bëgg jàmm ci suñu dëkk bii bëgguñu ku ni taal suñu dëkk dina ko jaxaseel liñ taalee Mali rek lii rek la même cause la amul benn diverse amul lenn lu ci wuute dañ leen di nax di leen fowee di leen tromper barki alquranu karim ngeen nekk fii tojantey bopp maanaam bu ñu kenn sonal ci ay coow maanaam jàkkee ibaadu jooju ñu ñëw maanaam ne ibaadu yi léegi ñëw kii affaire yooyu seen jàkka ja lañ ñëw tëj ko loolu la leen si jublu pour léegi ibaadu yu jog léegi après ne jàkka ja loon tëj léegi jóg maanaam indi coow buñ indee coow ku ci ma ne la surtout ibaadu yi ku ci ŋaang wala ñu ne leen terrorisme yi ñu doon wax sax ñu ngi nii leen ay problème seen dëkk andi Sénégal ay problème pour taal ko gis ngeen noonu yërëm suñu bopp muy ca ibaadu ba muy ca murit ba muy ci ñëpp ñun ñëpp noonu ànd yërëm suñu bopp nanu jël Sénégal ñu teg ko suñu kanam ku ci nekk gëm li nga gëm dund li ngay dund mais affaire yi affaire yu la yoo xamante si nii lan nii la ñuy ci dëkk yi jaxase ko fi gën a garaaw nag lan dugg nag ci wàllu diine wàllu ngëm-ngëm ndax Sénégal wàllu ngëm-ngëm fin ci toll dafa ëpp ba nga xam ni amatul calcul Sénégal yow nit ki na gëm lii nga weddi ko sax nit ka jàppee la noonu mën laa fenal mën laa sosal yooyu dañ ko fi gis mu doon lu am yoo xam ne ko buñ ko indeekoon maanaam yaakaar naa ni sax dina di nga xaw a tiit waaye doo doo tiit tamit ndax askan fi mu toll ñor xam fo yi nga xam ne moo fi am léegi lenn man bu dee jàkka jàkka jooju nga xam ni toj nañ ko Touba wala tëj nañ ko wala lu mu mënta demee du mu waxuma nag ëhlu murit nag pour ñu pour ñu dégg wax ji quoi maa ngi waxee ci lan ci man nan la ma Baye Fall bi mën a comprendre man nan laa mën a comprendre Baye Fall maa ngi wax nan la ma waa Touba mën a comprendre comprendre ma comprendre leen nan la ma waa Tivaouane mën a comprendre ma comprendre leen ci ndëgg sërëx buñ ñu bëgg a tegal te du ngëm-ngëm te ña ko lal ay saay-saay lan ak ku mu mënta doon loolu rek laa leen di wax pour ngeen bàyyi seen xel mbokk patriote buñ ñu yàqal ñii dañoo bëgg a yàqal dëkk bi nee na taj nit ñi yeewu nañ ñi ngi utiliser seen maayen xeex bi fii la ñi amatuñ fu jëm léegi nag ñu indil leen beneen combat bu bees ay jàppal ibaado ba toj nañ jàkka ja génne nañ jàkka ja ngeen nekk fi di wax yooyu dama ni leen wax yii ku koy guddal sax yaak amal xorom barki alquranu karim yii ku ci nekk laa di ko guddal di fa nekk di ko ëddi coow yaa ko amal xorom te képp koo xam ne yaa ngi jéem a dugg ci coow yooyu yaa ngi tardé senegal yaa ngi bokk ci ñi xam yaa ngi saraxe saw askan bu ñu saraxe buñ ñu saraxe waa xudaam googu bu fekkente ni xaw ma na toj wala dara yow murid bi yow laay laaj dama naan la luñ la indil xibaar buñ la indil toogal nga laaj laajte nga ne waa ñii jàkka jin bëgg a lan moo tax jàkka jin bëgg a lan lan moo tax ñu tëj ko ñu ne la danoo wax ñu ne la ana cassette ba ana lan lañ wax ana ki ka wax cassette dong sax du doy ab audio dong sax du doy nit mën naa def audio mu indi nga ne ko kan la kii li mu def am na loo xam ne danoo toll foo xamante si Touba bu amee problème yéen waa Touba yéen ko war a régler yéen patriotes yi nekk tuubaa ngeen dëggu yéen a war a régler problème Touba pas comme ndax affaire bi moo tollu fam si Sénégal tijaan yi war nañ am ñu leen di waxal murit yi war nañ am ñu leen di waxal Baay Faal yi war nañ am ñu leen waxal chrétiens yi war na am lu leen waxal Haalpulaar yi war nañ am ñu leen xam amee Haalpulaar yi ñoom ñoo génn waxal seen bopp ne leen seen problème bii du dëgg c'est faux problème bii du dëgg c'est faux yéen waa Touba yéen ñi nekk Touba bu ngeen demee histoire bi nga xam ne nee nañ am na ñu ut lu mel ni armée yéen lijjanti leen ko ngeen xool bu fekkente ni ngeen xool armee bii li nga xam si daa mel ni armée benn bu fekkee genre armée sax loolu jaxasee la ci dëkk ndax bu fekkente ni danoo bëgg a ñëw am na yoo xam ne jaxase réew la lan la ñuy waxee ay coow ci réew mi indi ay affaire waaso tukku lool xaarpulaar kii nan tojante bopp léegi nan lañ mën a jëlee tey ñu def Touba ne dañ fa bëgg def lu mel ni armée ñu ne waa Touba ñoom ñu àtte lan la ñuy wax fi mu toll nii dan ne mbir buñ koy àtte fa mbaxee ne doonee benn fa mbaxee ne doonee benn mooy lan mooy alkaati ya dëkk dafa war a am benn àttekat ñun ay sénégalais la ñu bokk nday bokk baay doon ay patriote ñun ñëpp ñu bokk ànd mboomandoo Sénégal ku def lu dul yoon benn attekat la war a am buñ jëlee ab armée ñu jox ko ibaadu ya ñu jël ab armée ñu jox ko murit ya ñu jël ab armée ñu jox ko tijaan ya jàpp na leen ñu ngi leen di saraxe bépp taalibe bu ci taxaw naan eskay ñun dooleel noonu ñu jox ñu armée mooy lan pour ngeen fajal seen bopp ay coow yu mel ne ñu jéem ko lijjanti ay nit ñëw dóor nit mun dóoree nit affaire affaire sot day am affaire bañkat day am ci foo gis nga dóor nit mu fayu ngeen fayu ngeen tojantey bopp dëkk bi tàkk ñii naruñu lu jub barki alquranu karim Macky Sall bëggul Sénégal lii ngeen def ko ci seen bopp yi dama ne leen Macky bu fekkente ni dafa dooleel Touba mu dooleel Tiwaawoon mu dooleel ibaadu yi mu dooleel chrétien ku ci nekk mu jox la armela ci dëkk bi loolu mooy tojonte leen yi bopp pour léegi ku ci nekk yow mën ngaa jóg nga atteel sa bopp ndax bu nee ab armée loo xam ni bu fekkente ni ab jàkk wala lu mu mënta doon loolu dañ ko war a teg ci loxo gouvernement bu sérieux bu fekkee lu dul yoon ñu dem fa mbaxande doon benn ni ah lii du yoon commissaire ñëw ñu la ko ñu tëj jàkka ja mu toon ci turu gouvernement mais bu buñ jëlee tey ñu jox leen ay kuréel ne kuréel yi kan nan mel ni ay policier léegi après nañ ñëw ñu kii kii ba ca force ci comme li liñ def kii rek nervi yi rek benn la léegi après léegi pour léegi keneen ñëw affaire civile pour indi guerre civile moo tax utiliser leen seen xel yi bu nu jiital gëm-gëm ñun ay frère lañ nañu xeexal Sénégal dama ni la affaire yi bu daree dem ba tar ba tar ba gouvernement nar euh, nar comme lim lim nar nii benn bu joxee armée muy kum ko mënta jox na laa dama leen bu ko joxoon pour exemple pour wax ci nu mu woyefee pour wax ci nu mu rafetee pour wax ci nu àndee ak respect ak cër ak ni ngeen mu mën a dégloo ak ni ngeen di xam ni dañuy wax ngir xol di wax ngir gis a yàqu-yàqu yoo xam ne dañ yoo bëgg a jaxase bëgguñu taal sens bii la ñuy waxee kase jeex na punt waxew ma ci beneen sens waxew ma ci pas sensu gëm-gëm waxuma ci sensu pour dugg kuréel nit waxuma sens pour saboter kuréel nit damay wax ci sensu li ñu bokk damay wax ci sensu ndëgg sërx yi nga xam ne dañ ko bëgg a teg suñu dëkk buñ ko nangu fo dafa doy sëkk ak barke dëkk baa ngi dem nit ñi commencé nan benno léegi fi mu toll ñu jéem a créer loolu dama ni leen même ñooñu waa xudaam googu bu fekkente ne ay armée bu nu indi teg leen foofu naan leen affaire ibaad dama leen yéen murit ci nekk Touba jóg leen ngeen dox ci ay ñaxtu ngeen xam ne lii ay caaxaan la yoo xamante ni sii dañ ñoo bëgg a jaxase ñun xeet wi bu fekkente ni ngëm-ngëm daf leen a toll foofu tamit ba ngeen jàpp ni loolu lu yoon la wala dara ak même bu fekkente ne dañ ko teg ci bakkan dama ne la ibaadu ya fa nekk bu fekkee bëgg nañ Sénégal bu fekkee bëgg nañ jàmmi Sénégal innal ardullahi waasix suufu yàlla gi yaatu na bu fekkee dañ laa génne ci lan ci ab jàkka nga teg ko nga ne da ngay jaam yàlla fu naan allahu akbar ci dëkk si Ahmadou bàmba sëriñ Touba mi nga xam ne sawaay bëgg yàllaa ko yonentam nekk ca diine dëkkam ñu ne tey dañ fay tëj ab jàkk ay nit ñëw taxaw ne dañuy tëj jàkka jooj dama ni leen buñ koy tëj ngeen gàddaay ngeen bàyyi jàkka ja foofu ngeen xam ne jàmm dafa bokk ci lislaam dama ni leen bu kenn indi fitna dam wallahi tallahi maa ngi koy wax ak ibaadu yi kon bu fekkente ni comme solution bii ñu wax ni comme nit ñi fekk si leen ci dama ni leen jàkka jooju nañ ko tëj nañ jël ngeen dem dakaar wala ngeen dem luga wala ngeen dem feneen ngir senegal na nañu senegal jaral bu kii bañee ki na kii kii bu ku nekk na jéem a fexe ndax coow bu amee ñaar ko coow lii bu mu gudd lu yomba fay la. ay jàkka dong dong bu mu tax ngeen fay xuloo dégg naa jàkka yi ki ñu tëj jàkkam ab mbàkke mbàkke la ñu ne jàkka jooj dañ koy tëj dama ne jàkka jooj ñu tëj bu leen ci ŋaang bu leen ci ñepp dem leen seen yoon ngeen daw wallahi bu dee Touba luñ ko dem leen dem leen Jurbel wala ngeen dem Dakar wala ngeen dem feneen ngir jàmmi Sénégal te xam ne képp ku taal Sénégal responsabilité bokk nga ci jaxase kase la jaxase bëgg tàngal xolu nit ñi murit baak tiijaan baak wala murit baak ibaadu ba ñuy tojantey bopp jubluwaay bi lépp lii kase la ay naxee mbaay la wallahi wallahi même bu dee ay nit a ko def ab sëriñ nekk ci ginnaaw di nga gis sëriñ yoo xamante si gëmuñu dara lu dul xaalis lu dul saraxe askan wi dara safu leen ñoog gouvernement yi ñoo yam ndax seen moromu sëriñ yi ñu ngi toog di contrante sëriñ bu nekkul ci yoon ñu wax ko alhamdulilah léegi dëkk bi dëgg bi ngi leer moo tax mbokk sénégalais si jàmm laa leen woo bëggatuma toog sax man di wax ba tudd kuréelu jàmbur wala ba wax dara waaye lii dafa doon loo xam ne lu mënta ñàkk la loo xamante ni sii kat nga gis ay ndëgg sërëx nga xam nga xàmmee nga ràññee nga xam ne lii ay naxee mbaay la nga xam ne lii taalum dëkk la ma waxee ci sens bii mais bu du woon loolu du ci tudd du ma ci wax bu du woon ak lii tey li ma dégg nii ci guddi gi du ma jóg sax di def live wallaahi ay naxe la wallaahi ay dil la pexem gouvernement la billaahi wallaahi tallaahi ku leen na du pexeem dañ leen di nax ku nekk leen mën a fay mën nañ fay ibaadu mën nañ fay murit ngeen def attention bu baax a baax mën nañ fay nit muy ibaadu ibaadu lu mën nañ fay nit muy murit murit lu ci mu jàkka jii rek ngeen dégg nii ñu fay nit muy murit murit lu ñu fay nit muy tijaan tijaan muy ibaadu ibaadu pour ñu tojantey bopp kee ñëw wax lu bon kee ñëw wax lu bon ñu ne ñaar ñii ñu ngi coow coow lii moo fi am ngandal ko réyal ko médiatiser ko ngeen fàtte coow la fàtte mboq ma fàtte dugub ba dëkk bi di tàkk dama ni leen yéen nënt seen seen jàkk ña fa nekk ci murit nañ commencé loolu bu tuubaa amee problème naka waa Touba rek la ñi dëggu ci tuubaa ñu toog ñu def seen live wax ni lii duñ ko seetaan lii duñ ci ànd nga xam ne du nekkat sax mbirum tarixa mbirum ay ndax bu dee koo xam ne bokkoo ci tarixa ba boo ci waxee da naan kii dafa contre sama tarixa moo tax lii ñi ci gën a yay comme na ko Haalpulaar yi defee woon macha allah lu rafet la tey yéen Touba yéen a aaye combat bi seen liggéey rafet na ci xeex ngeen ba naaw xeex ngeen pour mbuumu jaam gi ba naaw bu ñu jaxasee buñ ñu jaxasee xeex leen ko xam ne lii ay ndëgg sërëx la ngeen laaj ñooñu lii lan la seen coow lii lu ko yëkkati mu leer naññ ci seen bopp yi ay politique kase la noonu lañ mën a faye ab ibaadu wallahi fay murit ñu tañante bopp ñaar murit yi ak ti ti changé débat bi ci dëkk bi ngeen fàtte kii dëkk bi dafa dafa ne teg yàlla atte bëccëgum ndar kàmb mu leer naññ gouvernement bi seen naxaate yi leer naññ seen caaxaan yi leer naññ dëkk bi ni ngeen posé woon nii ànd ak seen xel ñuy dégloonte lii nii xam nan ni bu jëmee kanam ñoom ci suuf lan jëm te incha allah ci suuf lañ jëm moo tax nag il faut ñu créer seen i bagage dama ne leen jumaa joojee ñu leen naan dañ koy toj ak jàkk ay réel la dem rek dal ci jàkk ngir rek ay pees yu baree bari dal nañ jàkka ja léegi pour benn ibaadu léegi na jóg wax muriti kat néegu yàlla bi ñu ñëw toroxal ko nii def ko nii ñii danoo bon ñii danoo yées léegi nag nga jëlal en ibaadu ba beneen murit ba ñëw yéen da ngeen di diingat yéen da ngeen di kii nga jëlal en kële te instant yi nag nan jàpp ni bokkut ak jamono ju njëkk ji instant bii lu ñëw rek ñii dinañ ci profito ba fay ñaar ci groupe bu nekk ba coow am coow loolu bu amee wallahi lu koy fay du yomb léegi parparloo dikk xàccali koo ñëw dama ni leen nan bokk lu ñuy yëgandoo ab murit bu tooñ murit na murit taxaw ne ko sa waay tooñ nga ab murit bu tooñ ibaadu na iba na ko tooñ nga ab ibaadu bu tooñ murit na ibaadu yi toog ne ko tooñ ga ab ibaadu bu tooñ ibaadu na ibaadu yi toog ne ko tooñ nga essai yi nanu moytu wàllu boo dikkonte am na combat buñ ci dugg amalun njariñ amalunu benn njariñ fii jàkka yi bëri nañ lii du combat bi ñii nan ñëw bëre gouvernement bi dama ni leen ci mbapat biñ leen woo ci combat biñ leen woo ñëw leen fekk ñu ci ñun hôpital lañ wax ñun mbuum ak jaam ji lañ wax ñun France dem yoonam lañ wax ñun bennoo sénégalais ñu nekk ci jàmm ak salaam lañ wax seen ndëgg sërëx yi xam nañ ko lii pexem tubaab la la xew biu Touba français yi ñoo fa dugg tubaab yi ñoo fa dugg seytaane yi ñoo fa dugg lépp seen pexe la cosaan gi lépp boo xoolee fi mu cosaanoo fu mu balloo wallahi pexem tubaab la pexem tubaab boobu nag mooy ñëw nag ñu ñëw jël ay tubaab yi ñuul fay leen kaa aji saar war na leen ci waar li mu tuumaal sunk ak kii bi dil bi ni mu xawee set noonu la demee nag nan ko fayee mu jaral ko noonu la amee ci ay baadoola yoo xamante ni si dañuy ñëw boo mbubboo Serigne Touba taxaw ta ay baadoola lan seq ku yoog lenn Serigne Touba noonu la amee ay baadoola yu mën a ñëw di boo ibaadu te gëmuñu cent franc duñ benn ibaadu tas senegal moo leen tax a jóg film yii buñ ci dugg mbokk yi partagé leen partagé leen live bi ngir yàlla coow lii bu mu jóg coow lii waa Touba na ngeen ko réglé yéen waa Touba seen problème la ak ibaadu ya fa nekk réglé leen ko foofu yéen murit yi nekk foofu toog leen ngeen att dëgg te yàlla tax ngeen dem xool lu xew waa ñii lan moo tax ñu toj jàkka ja gouvernement bu leen ko yaakaar bu leen yaakaar gouvernement bu dee gouvernement rek ngeen yaakaar dañuy xam bu coow li ñoom coow moo leen arrangé ngeen xam ko ñu jàpp doomu jàmbur yi tëj ci lu dul dëgg askan wi jóg di xeex dëgg maanaam armée bi jóg soldaar yi di leen xëpp ay ay ay ay lakoromesal di leen dóor jàpp ay nit tëj ba léegi seen i mbokk taalibe yi nongo jog seen mbokk taalibe la taalibe sëñ Saaliw la ma nga ma nga ca ca ca kaso ba léegi lan la doon xeex yéen a ko gën a xam kon xam ngeen ni fii bu dee ay dëgg kase dëkk bii duñ atte atte dëgg atte wuñ atte bu dëkk bi tàkk moo leen arrangé Macky Sall taal dëkk bi la bëgg bëggul jàmm ci Sénégal loolu nag buñ ko xamee nag xam ne ñii bëgguñu kon nekkul ñoom ñooy àtte ñun peuple bi ñun ñooy àtte lépp lu am nañ ko waxtaanee ci njëkk ak ci teraanga lépp lu am nañ ci ànd ak sunu xel kon ñi ngi woo Serigne Mountakha Mbacké Serigne Mountakha Mbacké ni mu ko defee woon Sénégal di tàkk am problème mu woo activiste woo nit ñi neleen jàmm dëkk bi kat lay kii njaboote leen dajale leen ba mu woowee activiste yi laaj leen ne leen toog leen dinañ wax ak gouvernement ni mu amee ci dëkk ba Touba nag nga xam ne nekkul Dakar talee Dakar la xewee na ko lijjantee noonu biir Touba woo ibaadu ya ay sëtam lan ay doomam lañ woo murit ya ko ay sëtam lan ay doomam lañ mu woo leen ñu waxtaane ko ci njekk ak ci teraanga te xam ne ñii dañoo bëgg taal dëkk bi barki alquranul karim def na yëfi kilifa bu rafet def na lu baax lu rafet mooy fekk na dëkk bi di tàkk mu ñëw xëpp ci dox ba sedd mbàkke bàlla ay sa continué waat wool ibaadu yooyu say doom lañ wool murit yooyu say doom la ndax Sénégal moo soxla nekkatul nekkul affaire ngëm-ngëm mais senegal moo toll foo xam ni ñii danoo bëgg a taal senegal te nii lan taalee Mali nii lan taalee bépp dëkk ñun gënuñu benn dëkk dama ne leen dëkk yoo xam ni surtout yenent ña nga fa ñu dagg bopp surtout yenent laa la wax Ousseynou bopp ba dañ koo dagg dëkk boo xam ne ay yonent tëdd nañ fa ay kii tëdd nañ fa ay coow am fa sunu pétrole lañ soxla sunu gaz lañ soxla doon dañoo bëgg a takk jaam te nit ñu bëggee takk jaam benn point dong lañ fi dese muy point jabalisé ñu ci wàllu goddi compté sama mbokk sénégalais yeewu leen moo tax ci sentiment lañ leen di bëgg a fowee sentiment jaxase nañ murit baak ibaadu ba murit ba toj na jàkka ja wala tëj na jàkka ja benn waaye ibaadu ñëw jóg def benn laay fam wala dara lii luñ def lii luñ def tem mu dem sax baraaxaale sa ba sa sëñ ba muriti mere ko di bind ay live ay saaga ak yeneen ak yeneen noonante ba ñëw bañante ba ñëw ibaadu ba jóg ñu def noonu ba toj dëkk bi ba tas dëkk bi ci ay caaxaan kase ci ay politique kase nañu muus nañu muus fi mu toll nii képp kuy yëkkati fitna seytaane nga ak koo mu mënta doon muy ab sëriñ nga muy koo mënta doon surtout wàllu xeexu ngëm-ngëm moo garaaw lépp dañ koy waxtaane lépp dañ koy waxtaane kilifa ak ibaaru jógal kilifa ak murit jógal affaire bii du coowal ay nekk fii comme ak ñooñañ nga xam ne jël nañ leen ñu def leen ab armée yooyu dafa garaaw dëkk bi moo sensible moo toll foo xamante ne si ba kuy wax sax na nga xam ni ngay waxee ku bëgg Sénégal na nga xool ni ngay waxee xoolal wax ja nu mu xoolal nan nga mën a waxee ba nit ñi mën la comprendre ñu mën la dégg xam ne yow waxoog ñoom comme ay noon waxoog ñoom comme ay gëm-gëm mais yaa ngi wax ak ñoom pour xel di wax ak ñoom ci loo xam si pour jàmm ndax ay naxaate lañ fi bëgg a indi ndax xam nañ gëm-gëm fi mu toll moo tax ñuy jël di foowee sentiment moo tax bu kenn jiital sentiment mooy ngëm-ngëm nanu jiital sunu xel ndax ci ngëm-ngëm googu ci lan lay fawee kii daa sori ci bàmba daa bëgg bàmba moo tax ku ko bëgg a nax rek danga koy nax ca la mu bëgg ca bàmba nga koy jaareel nax ko kii daa bëgg Maodo ku ko bëgg a nax ci Maodo nga koy jaareel nax ko Sénégal instant bi coow bi fi am ci wàllu ngëm-ngëm wala ci wàllu dara nekkatul coow ngëm-ngëm wala dara jàpp leen ni ay coowal politicien la moo tax ñun ñëpp na ànd dox jàmm. ndax da gis bennoo tàmbale na comprendre te tàmbale na ndax bu njëkk li fi am nii amu amu fi woon bu njëkk lii amu fi woon bu njëkk amul woon tey nit ñëw gëm lii kii nga ñëw weddi la mu gëm rek mu merale mais léegi da ngay gis ay ñaari nit mën a composé da gis ñaari nit yu bokkul kii gëm Maodo kii gëm Bamba ñu mën a ànd kii ne moom gëmut loolu moom ibaadu la kii ne moom chrétien la ba pare ñu mën a ànd ci njekk ak ci teraanga loolu tàmbale nit ñi di ko dox di dox doxum jàmm loo xam ne lii mooy yëfi nit sax mooy yëfi nit nit ku nekk am nga droit nga xool la la neex nga gëm ñu mën a acceptante kon buñ ñu bëggee fooyee bëgg ñu teg ay ndëgg sëra ñu ngi koy tegee sama gaa yi live buñ fi def xam nga def na sànq di live gis nañ partage yi bëree bëri dugal nañ ko ci youtube ñu bare bari seetaan nañ mooy bi def ci ki nga xam ni faatu na ka faatu kaf ka dee dee na maa nga ca bàmmeelam ñun ñooy dund dama ni leen lii moo ëpp solo fuuf li ma doon wax sànq wallahi tallahi ay ndëgg sërëx la képp ku fi jóg jamono jii di leen wax affaire ay xaal pulaar gis ngeen nan indee woon ci affaire ay xaal pulaar yi maanaam aji saar bi ni ko tegee dil bi laa mu xaw a jàll nii ba xaw a kii lëbëj a xeli noonu lañ ko mën na indee ca tarixa ba mu mu lëbëj a xeli te duñ ci feeñ nag balaa ñu ciy feeñ affaire bi demoon ba dëkk bi tàkk ba coow ba kii ñu soog a feeñ affaire aji saar bi buñ ko ko waxee woon ni ñu bari dañ ci feeñ dañ naan lii dëgg la lii du affaire politique bu doon dañ ko def nii rek mu jàll rek jël Ousmane Sonko rek pakate kii nii du politiciens yi duñ ci gaaw a mais ay politiciens ñoo nekkoon ci suuf après li nii gën a dem ngeen gën gis politiciens yi di gën a feeñ di gën a feeñ mais commencement nekk loolu affaire politique affaire politicien feeñ ci woon ba ba ba ñuy soog a tàmbali Adji mais après nag ci lan dem ba xam ne lii ay pexe la mais ban koy soog a wax Sonko bu génn toon leeral yàlla leeral yàlla sax moo ci jàpp yàlla moo seetal Sonko ñu ci noon ni mu demee ci oto côté Adji Sarr noonu la mënee demee ci lu nekk ñu bàyyi ko dëkk ñii taal dëkk bi lañ lañ bëgg bëgguñu dëkk bi leer na leen naññ bu fekkee pour àtte nag jàmm ci dëkk bii. bu dee si ki bëgg a taal dëkk bi yor doole ga yor armée ba di xoqatal askan bi di tiital askan ci kooku nga yaakaar jàmb tay nga deede kooku lu mu xambee taal gi lay ut kon askan wi ñun ñun ñooy senegal ñun ñoo mën a taxaw senegal ñun ñoo mën a defar senegal ñun ñoo mën a jàppale senegal moo tax bu nu kenn nax kon lii kon soxla nañ ci Serigne Mountakha Mbacké soxla nañ ci kàddoom coow lii na ci gaaw jóg na ci gaay wax bu ciy wax muy fay xam ne dañ ñuy jaxase danoo bëgg jaxase suñ doomu réew nan ci wax bu fekkente ni ibaada yi tamit ñooñu nekk foofu noonu jàkka jooju maanaam dañ leen fa bëgg a génne ñoom nekkuñu yoon wala dara nan génn dem seen yoon bu fekkee tam danoo nekk même bu nekkee ci yoon ñu bëgg leen génne si jàkka jooju pour jàmmi Sénégal wallahi nañ ko bàyyi ñu dem uti beneen jàkk senegal dëkk bi coow moo ñu jigut mbokk sénégalais bu leen changé seen combat bu leen changer seen idée nañu wax ci li xew combat bi dañ ko mëne ñii jaaxle nañ ñii ñi ngi tato na ñii xamatoon fu ñu jëm ay ndëgg sërëx leen bëgg indi bëgg a changer suñuy débat bëgg a changer suñuy combat lii nag nekkul loo xam ne yoon la ci dëkk bi dëkk yëpp yu baax dëkk bu bëgg jàmm ab àttekat wala ay soldaar maanaam ñi koy yor mooy gouvernement bi mooy armée bi maanaam bu problème amee dañuy dem fa mbaxana doonee benn doo leen dénk fa mbaxana doonee benn fa mbaxana doonee benn mais loo baax baax ak daraja goo mënta am ñu jël lu mel ni armée ay soldats ñu jox la ay pistolet jox la arme ne la kaay yow léegi nekkal sa soldaaru bopp atteel lu la neex ci loo xam ne du ay loi dëkk du dara yow yow lan jox noonu def ko tuubaa dem Tiwaawan def ko fa dem ca Ibaadu ba def ko fa dem Fuuta def ko fa loolu lan lay lan lay wundu tojante leen bopp bu problème amee na benn koo génn fa la rek jël goonam rek dool kenn mu dee mu dool ko keneen ko jël goonam ne damay fayul sama mbokk dëkk ba tàkk tubaab ñëw di ñu saraxe di ñu saasaaxee mbir mi lii kase la ñu ànd bokk yërëm suñu bopp ànd xàccandoo dóorandoo ñun peuple bi la xeex bi xeexu peuple bi la te bu ñuy manipuler ci peuple bi la ñu manipuler armée bi bu leen yaakaar ndax ñii dooyu ñu yaakaar gouvernement bi bën bëggee buumu jaam gi dog nit ñi di xeex li nga xam ne mooy dëgg ñuy xoqatal nit ñi ñoom ñoo doon dóor nit ñi attewuñ benn maanu atte attewuñ dëgg jàpp doomu jàmbur yi di toroxal kon ki lay toroxal bu fekkee fa mbaxane doone benn ñi lay toroxal nii ñii ngeen yaakaar jàmm ci senegal senegal dina gën a tàkk de wallahi senegal dina gën a tàkk dinañ ko taal tas ko tasar ñii bëgguñu leen bëgguñu dëkk bi seen yoon nekku ci ku yaakaar ay atte ngeen naan da ngeen dem ca justice pour mu atte wala yoon yoon na mu gën a jaxasoo moo ko arrangé pour ngeen xam ko fii amut yoon dëkk bii nu gol a gol a xam bootee doomu maanaam loolu lañ fi bëgg a indi te mooy doole liñ si jublu yëpp lii la armée bi ñuy joxeek lépp bu leen foog ni lu baax liñ si jublu du jàmm tojante leen i bopp fa mbaxane doonee benn ñooñu ñooñu dóor fa mbaxane doone benn ñi ngi jàpp ay nit tëj jàpp Ousmane Tounkara mi sosal fa mbaxane doonee benn maanaam ñoo foofa la gone ak ñeent faatoo fa mbaxane doonee benn fu askan wi jógee am lu leen metti naqari leen te ñoom lan yaakaar génn buñ génnee ñu jël ay lakkara mesere ki ndox mi tàng di leen xëpp yor armée boo xam ne mel ni kuy jëm guerre ci saw askan genre de combat seen masque yanuy takk seen tenue anti anti kii jëm ci saw askan ay siwit diwooy doomu taal ku wax nga tulli sanni la xam ngeen ni ñii bu dee ñii ngeen yaakaar ay jàmm ci réew mi wallaahi doo leen am jàmm lu mu gën a na gën a rëbëjoo rek ndax France lañ fi nekkal France lañ bëgg mu toog France la ñuy xeexal ndax ba ngeen jógee di xeexal France naan da ngeen di xeex ak France ñoom ñoo ñëw di jàppale France di leen dóor kon ñii kon ngeen yaakaar ni peuple bi ñun ñoo leen ëpp doole fuuf ñun ñoo leen mën fuuf mun ñu nax te doole bi ne am nag mooy mbooloo waaye nekkul pàcc-pàcc la waaja jëloon garab ba rek jël ba ay bant bale dajale ko ba mu ko jëlee deb jël bale bi ñu dajale ko bëgg ko damm mënu damm waaye ba mu ko kiiwee ay bant bale daf ko jël saawee dammit par dammit dammit dammit ñii comme xar rek lañu bëgg a def moo tax sénégalais yi nañ yeewu wàllu ngëm-ngëm gii fu nit jógatee def bul ne sama mbokk taalibe de fu nit jógatee di def bul ne sama mbokk taalibe na nga ànd ak vigilant xawma lan nanga ànd ak xel waa kii lu ko tax a jóg amatul ay mbokk taalibeek ay mbokk kii mbokk sénégalais lañu wax muy chrétien ba ak ku mu doon dama ne la chrétien ba ak murid ba am nañ problème bu ne sama mbokk taalibe ba de waa ñii lan mooy problème bi lu xew lu xew pour affaire u Sénégal pour taal senegal kase lañ bëgg mais amul ay parparloo ay mbokk taalibe xam ngeen parparloo mooy lan ñun ñëpp nañ ànd far ci dëgg ñun ñëpp nañ ànd bokk lu ñuy yëgandoo lu ñuy metteendoo di jógandoo di dóorandoo di yuuxundoo wallaahi force bu rëy lañ gis force boobu lañ bëgg kii te te xaw ma nu waxee ci France dañu bëgg a tasaare dañu bëgg a tàqale bañ leen lànk leen ba tëdd si naaj ba bu ñu kenn boole bu ñu kenn jaxasee ñi ay seytaane bon lañ auzu billahi mina sheytaan rajim yàlla na yàlla wàcc jàmm Sénégal sama gars yi ngeen bàyyi xel ci live bu baax li leen wax ngeen partagé ko bu baax ngeen bàyyi ci xel wallahi ay fola ma ne leen kii boobu xudaam boobu maanaam loolu lu jara seetaat la lu leen tax a jóg lu tax ñu bëgg a jekki-jekki nii maanaam jàkka ja rek jekki-jekki jàkka ubaadu ya kii nañ ko see Facebook bi commencé kii ko ay ñetti nit ñëw wax ah wane image bi nii ne jàkka jee leen tëj léegi tëj nañ jàkka ja affaire yooyu jàkkay ibaadu ba hmm? ibaadu ya euh, maanaam dafa am lu doon wax ca jàkka ja léegi dañ leen di génne pour ibaar yi léegi jóg kii fële maanaam du affaire de jàkka du affaire de gëm-gëm affaire de politique la affaire de taal dëkk la affaire de tàqali ka as tàqali askan la kon ñi ngi ci woowaa Tuubaa ne leen seen dëkk problème boobu am fa jéem leen fexe yéen ba coow loolu nu mu ci jàmm ak ci bu leen kenn jaxase yéen ña fa nekk ay mbokk ngeen yéen ña fa nekk ay frère ngeen bu dee ab ibaadu la seen frère la seen doomu nday la ndax ka kani toj jàkkaam Mbàkke Balla Aysa la sant sëtu Sëriñ Tuubaa la Sëriñ Tuubaa seen deret la yéen a bokk Cheikh amadu Bamba ëppale woo ko dara ci Serigne Touba ñu xëy ne surtout Cheikh Amadou Bamba dañuy toj jàkka joo xam ni maa ngi fa nekk di fa julli loolu lépp ay teg xel kase la bu bu leen lor seen bokk bu leen lor sëtu Serigne Touba ndax sëtu Serigne Touba la kan i toj kañ toj jàkkeem jàkkaam kan bëgg a tëj jàkkaam noonu sëtu Serigne Touba lii ay diabolisé la yoo xam ni yéen ñëpp ànd leen ci ndax ay deret ngeen benn deret ngeen ñun ñëpp ay benn deret lañ benn mbokk lañ affaire bii nekkatul ay xeexu ngëm-ngëm xeex la boo xamante ni si politiciens yi ñoo fi bëgg a dugal lii bëgg a jaxase dëkk bi sama gars yi ngeen eggalee ko seen xel ngeen partagé ko ku ci mën a wax jàmm nga wax ci jàmm képp koo xam ne wax ji indi ay fitna di taal dëkk bi di indi ay coow bu ci dugg bépp liveur bu benn liveur dugg di wax ngir ñëw dal benn tarixa wala dal kenn wala kii liñ ciy jublu lii kase la ñuy saagante di tojantey bopp di wax ci yoo xamante ni si na dëkk bi tàkk loolu ngeen bàyyi ci xel bu baax baax bu ñu kenn foye bu kenn foye suñu bopp yi ndax seytaane waxu dëgg waaye yàq nam xel ñi ay seytaane lañ dëkk bu tàkk rek lañ bëgg seytaane weesu indi fi ndaw soo xam ne ñëw jombal sénégalais yi taal sénégalais ay coow lu rëy bëri fa ñii ay seytaan lañ coow kese la ñuy indi képp ku fi indi coow seytaane nga ak koo mënta doon ak foo mënta bokk ak loo mënta doon ak lu la mënta tudde kon boog nanu jël mbir mi di ko def ci personne waa groupe boobee xudaam du waa ëhlu murit ñoo def du waa Touba ñoo def du Baye Fall ñoo def mais képp koo xam ne bokk nga ci xudaam nga dem ca jàkka jooja problème bi léegi waa xudaam la ak waa kamu toj jàkka ja waa Caaroy seen yoon nekku ci waa Dakar seen yoon nekku ci waa Tamba seen yoon nekku waa Tiwaawan seen yoon nekku ci waa Xudaam la mooy xawma armée la xawma la ak bu dee ab sëriñ bu ko jiite ak sëriñ booba ko ko jiite léegi nag ak kamu amal problème sëriñ Muntaxa Mbàkke mooy kilifa Tuubaa na woo waa Xudaam googee woo ñàkk xam ñoo ko séq ñu régler problème bi si jàmm ak ci salaam xam ni ñi senegal lañ bëgg a taal yu yomba réglé la toog yii du coowam ñaari salaamaaleykum ñoo koy bëgg a jabolisi bëggu ko ngandal bëggu ko léegi waxkat yi bu nu waxee ngandal ko mu gën a ngand mais lu yomba réglé la billaahi wallahi coow lu yomba fay la bu ñu foyee bu ñu nax waa xudaam coow li du waa murit waa xudaam la yow murit bi nga xam ne bokkuloo ci waa xudaam xudaam luy sa problème waa xudaam ak ñee jàkka jee ban problème la problème bi lan la léegi après ak lu mu mënta doon rek atte si jàmm ibaadu ya fa nekk bu fekkee neexu leen jàkka ja foofu neexu leen fa maanaam ñu génn dëkk ba wala génn jàkka ja wala kii jàkka ja dem feneen ngir lan ngir jàmmi Sénégal bu fekkee nit fi ngay jullee di fa jaamoo yàlla yàlla jàmm la bëgg yàlla si jàmm lay woote ci jàmm askan wi ñu war a bëgg suñu réew war a bëgg Sénégal mais luy taal Sénégal buñ topp suñu bakkan buñ topp suñu gëm-gëm bu nu jiital sentiment mbokk yi maa ngi ciy woo Baay Faal maa ngi ciy woo ibaadu yi maa ngi ciy woo chrétien yi maa ngi ciy woo mbooloom aate yi maa ngi ciy woo ñëpp billaahi ñëw leen ñu ànd ci combat yi mooy ba bu ñu kenn jaxase tollootuñ ci affaire yoo xam ñu ñuy manipuler ci ay ngëm-ngëm lii ay manipuler la ay folo ci ngëm-ngëm donte waa xudaam ñoom ñoo ko def donte am na benn sëriñ ba ca ànd benn sëriñ ba ca ànd moom la concerné am na yenn sëriñ ci àndut lépp rek dañ koy waxtaane dama ni leen lu loxo def loxo mën na ko dindi lu xel def xel mën na ko dindi ay xel la ay ndëgg sërëx ay manipulé ñun tamit noonu lañ mën a toog pas ay affaire xëdër xëdër waxtaan asawaay ah, lu xew bul dégg waa xuraam rek tëb bul dégg jàkkee ibaadu ya rek tëb <laughs> danoo xam yoonu diabolisé déedéet du toogal laajte sa maayam waxtaan sawaay lu xew waa Qudaam ak jàkka ibaadu ba moom leen bëgg a toj waa lu lan lan def ñu wax la ko bu dee lu kii lu kii lépp ñu waxtaane ko bu fekkee ñu war a génn dëkk ba ñu génn dëkk ba bu fekkee ñu war a toog dëkk ba dañ leen toog ñu ne ee eh, sawaay lu dëgg waxtaan waxtaan buñ demee xëdër xëdër buñ demee mer bu la kenn wax ay information yoo xamante ni ngay ñëw di déglu ay information demal ci lu lu wóor demeel ci xam-xam demeel ci waxtaan ku gis benn murit ak benn ibaadu ñu jékki-jékki di cooki di tojantey bopp xam nga lu leen war yow mbokk murit bi ak yow mbokk ibaadu ba maanaam yow man ibaadu bi na jàpp ñaari tànk yi murit bee jàpp ñaari tànk yi ci ci ci ci ku ci nekk si ñoom ñaar ñu tàndal leen par ñu def ko kat kat ñaari ibaadu ñaari murit ñu jàpp ibaadu ya jàpp ñaari loxo murit ba Euh, murit ba jàpp ñaari loxo ñaari tànk murit ba am benn murit ak benn ibaaru bu taxawee de ku ci nekk yor sa yat kii bu cawee kele caw ngeen xam ne ñooñu ay seytaane la xam ngeen loolu kii la pàcc pàcc dañu bëgg a taal dëkk bi dañ leen di fooye wallahi wal azim la dal mali jomm leen dof dof li leen foofu nag di demee ci ay ngëm-ngëm wala dara seen dëkk baa ngi nii avancé wut ba léegi seen dëkk baa ngi nii di tardé ba léegi ci wàllu ngëm-ngëm dippi dippi kañ ba kañ amoo leen loo leen lekk amoo leen lu naan seen hôpital matul seen dara matul liggéey leen liggéey leen gëm seen bopp liggéey seen réew bi ñu bàyyi fo yu ñi fowe dafa doy dafa doy nañu bennoo sama gaay mbokk sénégalais yi fi toll nag live mayen la live rek yéen pas comme xëdër xëdër wala dara bëgg ngeen dégloo ko ak mayen bu leen jiital sentiment ni ngeen jiital seen maañ salaamaaleykum wa rahmatullah Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.